jaajëfewaat leen ah, bu baax suñu mbokk internet Leewtoo TV di leen nuyu di leen ñaanal kenn dal ak jàmm tey samedi 20 février 2021 fas yéene ñëw rek jukki leen li gën a fës ci bopp xibaar yi Assane soo fayee rek ñu daal di wéyande ak ñoom. Ndeye Mbacke fay naa la amaat mbégte jàkkaarloog internetu Leewtoo TV yi pour indi leen li gën a fës ci yenn kaay yi. mu nga noonu date ba daaru na saison ouverte le premier match incha allah lamba ja sàjj na Assane. dëgg la Ndeye Mbacke ni nga ko waxee noonu la saison ouverte le premier mars noonu la ko journal suñu la am waxee ni nga ko doon xaar nag wéy wa daanu na léegi saison bi le premier mars lay démarrer ginnaaw bi ñu ko waxee nag euh, Leewtoo TV woo na Bira Sène woo na Maysa woo na Manga 2 pour am confirmation euh, information boobu waaye journal la suñu làmb lu mu ci teg nee Matar Ba moom moo joxe euh, ordre pour que saison bi mën a démarrer première mars bi waaye nag euh, saison bu démarrer ci huis clos lay amee waaye également ci respect des mesures barrières ak protocole sanitaire bi nga xam ne ni CNG ministère euh, des sports wax na leen ñu respecté ko loolu lépp le journal suñu làmb xëy tënk ci si unoom bi tey. ca loolu nag la ci teg li li teg mooy les lutteurs testés à soixante-douze heures avant leur combat. dëgg la Ndeye Mbacke loolu Thierno Ka di président commission médicale bu CNG moo ko xamle nee na képp kuy bëree bala ngaa dem ci làmb ji à 72 heures du combat nan la testé maanaam 3 jours avant combat bi dinañ la testé dinañ testé également arbitre yi médecin CNG yi ak entourage lutteurs yi li ma jaaxle mooy journaliste yi leen waxagul xaw ma dinañ ci bokk wala. di ngeen ci bokk de yéen la ñuy njëkk a puir kat a àddu nag mooy Pape la démarrage du CNG n'est pas élégante. dëgg la Ndeye Mbacke dafa ne Pape Abdou Fall moom nee na la démarche du CNG neppa pas élégante nee na euh, information bi wàcc na waaye ni ko CNG wàccee moom moo nekkul noonu nee na CNG avant ñuy def euh, joxe annonce bi waroon nañu convoquer promoteurs yi waxtaan ak ñoom pour ñu mën a trouver benn terrain d'entente avant ñuy def annonce bi. ca loolu nag Père Gaston Mbengue le Don King de la lutte sénégalaise c'est une bonne nouvelle très bonne nouvelle sax noonu la ko waxee ci journal suñu làmb. dëgg la Ndeye Mbacke Gaston Mbengue moom nee ne euh, annonce bi saison ubbi bi lu baax la waaye nag moom it comme Pape Abdou Fall li mu ci ñaawlu rek mooy la fait que CNG wax ko sans mu euh, euh, avant mu convoqué promoteurs yi waxtaan ak ñoom ci information bi waaye Gaston également nee na lundi incha allah dina dem. Euh, pour régulariser combat bi di Eumeu Sène Lac 2 bi nga xam ne nii le 4 avril la ko prévoir. Uh-huh. Amadou Bob porte-parole du CNG les promoteurs peuvent organiser à partir du 1er mars incha allah. dëgg la Ndeye Mbacke Amadou Bob moom mooy porte-parole du CNG d'ailleurs information bi moom moo ko joxe moom nag li wax nee na promoteurs yi mën nañu dès à présent dem organiser le premier er mars bii waaye nag li mu fi wax nee na euh, CNG dina leen accompagner ci loolu ñoom nag. seen côté ñu jël seen mesures yoo xam ne ni dina leen permettre ñu respecter les mesures barrières ak le protocole sanitaire. ba léegi ah, ña war a bëri le 4 le 4 avril incha allah confrontation de deux lutteurs en avril Eumeu Sène invaincu Lac de Guiers vers son sixième combat. dëgg la Ndeye Mbacke xam nga gason Mbengue dafa prévoir combat bi di Eumeu Sène Lac la le 4 avril léegi nag journal suñu bu def benn étude si 4 avril yi Eumeu Sène euh, nombre de combats yu mu bëri 4 avril. ak euh, Lac de Guiers nombre de combats yi mu bëri 4 avril léegi lii suñu làmb wax nee na Eumeu Sène ci 4 avril bëri na fa 3 combats 3 combats yëpp daf ko daane nee na Eumeu Sène bëri na ba ak Ousa Sow Sow daane ko le 12 avril 2000 bëri na fa ak Lac Lac de Guiers mi mu war a jàkkaarloog le 8 avril 2012 daane na fa également Balla Gaye le 5 avril 2015 Lac de Guiers moom mi ngi dem ci sixième combat boo xam ne nii ci mois d' la koy bëree. daane na ci Batika loolu 30 avril la woon 2005 Issa Pouye Papa Sow mi ngi ci nii ak Modou Lo waaye Eumeu Sène moo ko ci daane. mi mel ni avril bi dara kii la dara arrangé Eumeu Sène moom avril moo am la. waaw moo am la 3 euh, de Guiers def ci 5 combats 3 victoires 1 nul une défaite. Mhm. Serge Thiès Abibou Diallo nouveau président que les que les gens enterrent leur crève. dëgg la Ndeye Mbacke ginnaaw bi information bu wàccee démb Abibou Diallo lan fal ci bopp Serge bu Thiès tey nag la mu daf ko jox kàddu mu wax li wax moom nee na la na gars yi comme ginnaaw fal yi jàll na. léegi nag euh, coow li nan ko bàyyi te liggéey wax na fa également ay objectif am mu lan premier objectif am mooy que ne mu garder trophée euh, chef de l' état xam nga Thiès moo ko jëloon bi passé mhm. nee na objectif am premier moom mooy mu garder trophée boobu wax na également euh, beneen objectif boo xam ne ni mooy régler problème yi am ci comité départementaux yi département bu nekk dafa am benn comité de mhm. par souvent day am ay problème nee na beneen objectif bi mooy que mu euh, régler problème yooyu wax na également bëgg na investir ci lutte avec euh, lutte olympique nga ne lutte olympique dafa xaw a dellu gannaaw Thiès te euh, bëgg na balaa wàcc daal mu lutte olympique. olympique boobu jëm kanam. mu suqali ko mu suqali ko voilà. pensionnaire de Kër Massar mbooloo jànkala attend caatu rëbës Liss Ndiago. Mhm. dëgg la Ndeye Mbacke noonu ko waxee loolu la jànkalaar benn mbër la bu ndaw bu nekk Kër masaar mbooloo. moom nag li mu xam le mooy que moom pare na pour bëre ak caatu rëbës ak Liss Ndiago nee na ñaar ñi daal ku ci ñëw rek moom pare na pour jafla jëflante ak yow wax na également kan mooy idoolam ci làmb ji nee na idoolam ci làmb ji mobile de la. mobile 2 beneen jeune la comme moom loolu da neex na moom. nouveau bureau du CRG de Thiès Abibou Diallo investi pour un mandat de deux ans. dëgg la Ndeye Mbacke ginnaaw bi ñu ko falee ci boppu CNG bu Thiès suñu làmb nee na Abibou Diallo benn mandat bu deux ans la war a def nee na nag euh, ginnaaw bi ñu ko falee Babacar Diop mi nga xam ne ni candidat la woon moom dafa génn complètement ci bureau bi Thierno Ndiaye nag moom mu lan fal moom mooy régler les règles les les règlements ak discipline yi moom moo ko gérer nee na nag euh, bureau boobu am na ñetti jigéen ñoo xam ne nii bokk nañ ci. ba léegi dañuy desandi ci CRG bu Thiès une rébellion en vue mu mel ni lay xeeñ foofu neexul. dëgg la Thierno Ndiaye moom lan def commi moom lañ fal président commission réglement et discipline waaye bi ñu ko falee loolu post boobu neexu ko. loolu nag la journal suñu la làmb wax te nee na moom ak gaayam bi ñu ngi prévoir benn région dimanche bi buñ ci paree daal dinañ def loo xam ne nii euh, dinañ teg ay décisions yoo xam ne nii pour attaquer. décision gouverneur gouverneur bu Thiès bi nga xam ne abi Abibou jàlloo la teg ci kaw bopp CRG bi loolu daal neexul leen te bëgg nañ ko euh, xeex nañ ko xeexee pacifiquement rek dana dina jaajëfal bu baax Assane Waalo loolu moo nekkoon li gën a fës ci bopp xibaar yi Ndeye Mbacke di la remercier di comme d'habitude remercier waa Linguère di remercier Yacine Fall di leen jox dig daje <laughs> yoon incha allah. noonu la demee ah, moo nekkoon li gën a fës ci bopp xibaar yi di jaajëfal bu baax équipe technique bi yëpp. Hmm? Ousmane tey moom kontaane naa la bu baax a baax a baax Yacine Fall bëgg naa la di nuyu borom kër gi Pape Thialis Faye di jaajëfal équipe bi yëpp di jaajëfal aussi suñu internet ñu ngi leen di gis ñu ngi yéen a ñuy suivre ñu ngi gis aussi commentaire yi ku ci commentaire rek mu nekk lu lu lu neex wala lu naqar dañ koy jàpp positivement xam ne li ngeen di wax pour suñu njëriñ la aussi di leen remercier bu baax a baax di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.